tey nag ñoo ngi Pikine fii ñu nekk mooy stade Alassane Djigo Talla yaa xool tribune bi ne le gis nga ni mu feese tribune bi nekk à droite fees na a gauche fees na li ko waral mooy Eumeu Sène fi woote open press ngir lan di tàggatoo premier tàggatoom ak ay supporteurs am balaa dimanche Talla Ndiaye bu la neexee yaa dégg way noonu Talla jógal yaa dégg gis nga si Talla gaañaa ngi baax a baax. tey organisation bi ngeen def méthode bi dafa rafet macha allah xel mi fu mu jógee. waaw loolu dañ ko waxtaanee rek parce que Eumeu Sène moo toll ba nekk mbër moo xamante ni woo am wootul am wootul def am dafa demee woon noonu mu amoon ay corxo corxo mais bii paa dañuy mbër dafa dugg si rek ñëpp presque ñëpp daw wut si ba yéen li ngeen bëggoon seen liggéey jot leen koo am moo tax bii paa ngi doxalee ko nii. tur bi foo laaroon njëkk sax yow noo yore ci kuréel bi nii. waaw ñun ñoo yore staff bi ñun ñooy staffu Tay Shinger ñun ñoo gérer affaire mobilisation affaire <coughs> organisation yi a mbër mi bu génnee fi war a génn fi mu war a dem yëpp ñu ñoo ko gérer ok waaw. kon daal dimanche mën nañoo xaar tamit organiser mbooloo mu takku ngeen indi ko sax. dimanche kàttanu yàlla di andi ci mbooloo moom dina dina dina am solo trop dimanche moom ci kàttanu yàlla moom ku teel la ñëw dañ feesal stade bi. Modou ngeen koy non loolu dañ wax moom sawaay da ñëw rek bu ñëwee fa fas yéene feetu si fee victoire ak ñun quoi mu feete ko gi mu ñëw fii feetu si ak victoire parce que dina nangu loolu non dina ko nangu dina ko nangu ah. <coughs> si dina ko nangu ñu bàyyi ba dimanche incha allah dimanche incha allah rabbi nañ ko daan jël bu set wicc ba amul benn werante ok merci beaucoup maa ngi yàlla Babacar ñu ñu tur bi Khalifa Babacar Niang waaw ah, Khalifa bu Tay Shinger président écurie Tay Shinger ah. ngeen jëmati ci bés dimanche des arènes seen premier génn combat rawaas ak Modou Lo mu mel ni ñaari enjeu moo tënku ci combat bi est-ce que combat bi disul ci yéen. non combat moom dootul dootul diis ci ñun. Balla Gaye dal ci dal ci Bombardier combat mënut diis ci yow donc dañuy ñaan yàlla rek yàlla may nu ñu eggaleeg suñu sago parce que euh, préparé nañ ko ni ñu ko war a préparé teg ko ci yoon ku xool Eumeu Sène xam ni Eumeu Sène ma woon ak Eumeu Sène mi bokkul. jarul nag ma leen koy wax yéen nañu yor seen bët yéen a ngi xool yéen a ma gën a xam sport bu ngeen gisee bu ngeen ko gisee léegi dans quinze minutes di ngeen xam ni Eumeu Sène mii bokkul ak Eumeu seen ma woon. waaye ki muy dajeel dégg naa mbir mu lakkale la de. waaw sant yàlla rek mbir mu lakkale la mais ñun jël nañ suñuy disposition yëpp vraiment kenn dara mënu ñëw bett. dara mënu ñëw bett. kon laa amoon bu njëkk xalaatu mu amaat. non nekkuñu si disposition yooyu sax ñun dañu nekk suñu yoon di dox ba yàlla indi roi des bi. ñu war ko téye confirmer ko nag waaw loolu nekkul loo xam ne lu ñuy fooye la donc lépp loo xam ne day combat bi da koy laaj rek dañ koy def pour am ndam incha allah. sant gi dégg naa football nga fi ba tàyyi nag. waaw fii de am na lu ma fi jot a lu ma fi jot def de. nga expliqué wala. non non jotuma man nawetaan rek laa jot a football quoi. Euh, jamono ak bokku jëf. Ah. joué naa ja bokku jëf joué naa jamono. mais comme jàng bi la ma paa bi jàppale woon jàng bi moo moo doon farata. Ah. waaw moo gën a ëppoon farata ci man. mais ñaari camp supporters yi loo leen wax pour dimanche. waaw dañ leen di woo ci fair play rek vraiment parce que sport la ak lu mën a xew ci du euh, euh, victoire bi du génn banlieue bi kon dañuy ñaan yàlla Pikine yëpp ñu mobiliser wu Pikine yëpp ñu déterminé wu mais dans le fair play ñu dem bëre bi daan daan bi ñibbisi ñibbisi bi Sénégal ne ci jàmm. merci beaucoup. Ndeysaan dégguma la nga ne. foo leen lëccoo daan fa foo leen dem daan fa ci image bu leer. képp ku bëgg a am information bu baax. Leewtoo TV surtout Samba Xoyam bi laa nar de daan nag borom laa yëngu South Africa laa ananas. kon lu koy giifal surtout Samba Xoyam bi. li koy xanaa ñëw rëkk sa kaw rek def ñu fi génne ne hey ay xarañ bu ñëwee nga xam ne ñëw na. moom ama xanaa xamoo leen waaye nag dunu ngaaka. axlu lamb nañ ñu bàyyi ak li ñu moom Pikine bu ñëwee li daal suñu frère surtout Cheikh Irim Ndoumba mi bala ko demandé mbaa Yirim may sa xarit mi ci njopp ko ñaanal yàlla may ko ay ndam yu bari waaye dama lamb ji dunu ngaaka nan ñu bu suku dimanche Eumeu Sène def li mu war a def tam ñu bañ a corox coroxo xoolal li benn ñaar ñett doxatul naat. mbët tey waaw waaw Babacar. acca yokku na ko. ak leer. si kanam. maa ngi seen Batista. tey dañoo mobiliser Babacar tey. oo Pikine ah, waaye Mor nga may taala. waaw waaw. taala oto yaa ngonguy ñëw de taala njaay taala ay oto laay gis ama ngonguy ñëw ama seena ngay ñëw ama ngay ñëw ama seena ngay dugg yéen ngi pikin moo xam syndicat la ilaha illallah taala kaat kaat yaa ngoong ëmaa ngoonguy dugg si ndeysaan taala ëmaa ngoonguy dugg si de la ilaha illallah maxana la sol rangool la mu daan rangoo mor sa wa xonga ba ca loxo ba taala njaay jiital lu bula eh, mu nga yëngal loxo ya londa tay singa le roi des arènes Ama Baldé ak cooto bi Ama Baldé ngongu lang Ama ngongu ndeysaan wala lan déedéet Ama lay siin Ama ngongu Eumeu Sène ngongu le roi guru lamb aca le ngi noonu ndeysaan Ama Baldé ko encadré tey waaye lii daw na yaram waay dëggale sal bi li ñuy wax eh Pikine ngongu eh Eumeu Sène la ilaha illallah le roi des arènes l'homme de taille si nga na Ama Baldé ngongu waay lii rafet na waay ça c'est beau ça c'est beau Ama ndeysaan taala nag daa mel ni fi mu nekk nii mu ngay dugg de wàcc de gaa yaa de mu ngay daw de daw na daw na daw na daw na laa ilaha illallah ee eh, ama seen a ngay daw gaa ya ca muy daw lu bule la sol seen daa buj Boy Niang Ama Baldé Ama Baldé ngo mu ñëw ànd ak suudu la ilaha illallah suudu ngay sotti rek ndeysaan maa ngay seen soq di seen Ama Baldé Eumeu Sène wàcc na ànd ak soq ak Jetli laa ilaaha illallah Eumeu ngoona ma ngay ree eewe eh waaye lii rafet na waay eewe eh xam nga lii de ko amul entraînement mënoo koo def paa bii nañu bay paa bii paa kii. teew waay ndeysaan Talla ñoo nga ca de ewa oh Boy Niang ngay wax ak moom ndeysaan ndeysaan ànd ak ay rakam ñu war ko moom

waaw combat boo xamante ni tey Yëpp

waaw ah, parce que combat bi dafa ñor waa Pikine. titre dem jëli Modou Lo. Hmm. te Modou ci defet lan moo ko waral. waaw lamb rek lamb boobu dafa am à la retour xëy na retour rek loolu ñaar ngeen bëri fële ca stade Demba Diop. ngeen ah. bëri Modou Lo la mu mel ni revanche lay jëlaat. ndax da nga ne bu la Diop bu ne dina la xaar yéen a. Ah. combat bi naka nga ak combat boobu nga jóge moom mooy Modou Lo fële ca Demba Diop. waaw pare ko rek parce que boo gisee boo jugee ci combat boobu ba léegi changement dafa am du dëgg mu jugee ci combat ba pare changement dafa am mais nag alhamdulilah rabbi alamin waaw combat bu ñu ñor la combat bu ñu bëgg la combat tam bu ñu intéressé kon du def lu dul yokk jar doole ñee rek entraîné comme mu waree waaw. combat mi ngeen joxuma ko man maa ko jël est-ce que combat bi du ko bëri ak pression ndax du doon pression ndax li nga dig man mënu ma am pression ci làmb mënul nekk parce que xam naa défaite xam naa victoire xam naa lépp ñaari bi muy saf mënut ma pression ci làmb combat bi zéro pression lay demee xaw ma ko sax waaw. combat ñu ci bëri nee nañ combat bi képp ku ëpp physique ñaari mbëri rek yow yaa moom combat waa làmb xam nga mu nga bëgg mu gaaw mu yéex. lamb ma ne lamb mu nga bëgg mu yéex mu gaaw mu nga bëgg mu gaaw te mu yéex ça dépend ci combat bi rek mais nag pare na ñaar yëpp. waaw monsieur monsieur ak yow muy laaj. Ah. dañoo gis ngay bëre ñaari titre. Ah. muy titre roi des arènes. Ah. ak sa revanche. kon ñaar yooyu noonu nga xamante ni moom nga indi. ci sa diggante yow ak kii di Modou Lo tey loolu boo ci doon wax loo ciy wax ci ñaari titre yooyu noonu nga bëre bon man jàpp ma sa effet de effet de roi des li ma jàpp mooy revanche rek moo war a loolu laa gëm quoi waaw di di di sant yàlla d'abord bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërëm samay waajur mag di gërëm euh, kilifa diine di jaale tamit aussi vraiment suñ kilifa yi nga xam ne génn nañu àdduna yàlla nañu yàlla yërëm te xare na àjjana bon du nuyu Sénégal yëpp di ñaan Sénégal na fi jàmm yàgg du nuyu waa Casamance muy sama côté yaay du nuyu sama mbokk séeréer yëpp sama côté papa du nuyu waa Maka Diané ak waa Bogal du nuyu itam aussi vraiment ñi xam jàpp nañ ci combat bi. waaw ku ci mel ni sëñ Abdou Karim Mbacké ñu ngi koy ziar bu baax yokk nañu ñaan bu baax waa kër euh, maam El Hadj Malick taaliba seex waa kër Baye Niass sërif maa ngi wax kursi sërif yi tamit aussi bàyyiwuñu kenn. waa waa laayeen yeeg ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi du ñu jàpp ci combat bi ki ci mel ne Abdou Karim Sall jàpp na ci combat bi ki ci mel ne Isaaha jàpp na ci combat mu jàpp bi rek bàyyi Ablaye Timbo vraiment gis nañ tamit aussi ni jàpp na ci bu baax a baax bon Thierno Ndom tamit aussi jàpp na ci bon seize commune yëpp vraiment ñu ngi may jàppale ki ci mel ni Khady Traza moom tamit jàpp na ci ñoom mami ñoom ñëpp Lac Rose ñoom ñëpp jàpp nañ ci combat bi. di nuyu tam aussi vraiment ku ci ni Boy Niang su ma rakk la aw ma fayam xam nga su rakk ku ci mel ni Ama Baldé su ma tamit aussi même chose gis naa fi Sokku xam gis naa fi Jarli xam ma docteur Macoumba Diouf nag vraiment docteur Macoumba Diouf aw ma fayam vraiment jàpp na ci bu baax docteur. jàpp na ci bu baax di nuyu tam aussi ku ci mel ni Ndiaga Abdou Diop Mbër. Basson sama xarit. maa ngi koy nuyu. Dégol sama papa. maa ngi koy nuyu. Baba xam nga Père Bourkhane. xam nga ak euh, gars yi ak kulum dëgg ju vraiment gis naa ma ko Pikine ñëpp sama ginnaaw. Pape a wax ci loolu. waaw xam nga loolu moom du ma def lu am contentement bu rëy parce que mooy lu ma sant rek ngay xewle sa mbokk yëpp dafa neex sama staff commencé ko ci président bi Khalifa Randiang Pape xam nga si c'est kulim da ngay juum xam nga gars daal vraiment kulim da ngay juum kër si ñëpp gars yi vraiment taxaw nañ ma nu ñu ma war a taxaw Pikine jàppale nañ ma nu ñu ma war a jàppale parce que tey lii rek da lay woo da lay maanaam wax la tey Pikine ñëpp a génn seize communes a génn waa Mbaaw vraiment amu seen fay waa Mbaaw gis naa waxuma la dara sax mais dañuy génn di fanaan ci mbedd ba bërsëg waaw mbaaw bu baax maa ngi leen di baalu ak ñoom ñëpp gis naa jàpp ci bi gën a sa combat waaye mooy lu ma la wax rek xam nga tey jàmbaar nee naa la ñam naa victoire ñam naa défaite nokkutu nañ ma ci làmb xam naa lépp lu muy saf lu nekk mënu duma am pression parce que bés bu rëy bu nekk bëri naa ko combat tànk yi maa ko bëri combat yu yëpp mu nga ma ëpp combat mais combat yu waxee suñu waxee te maa ko ràññee parce que nit munoo weesu nit tey ñun amuñu lu tey lu Pikine amuñu tey lu dul supporters yi jàmbaar xaalis boo yoree ay milliards mun a satisfaire ñëpp munul nekk mais soo baaxee mun nga satisfaire àdduna baax alors yàlla maa ngi nuyu tamit aussi waa Gambie bu baax a baax a baax Cheikh Modou Kara sama xarit Cheikh Modou Kara sama xarit maa ngi koy nuyu di nuyu tamit aussi waa jeel bi yëpp xam leen di nuyu jeel bi yëpp maa ngi leen ñu ngi toog seetaan en direct muy campé muy 100 ñëpp rëbës tout ñëpp. ak waa sécurité xam nga sécurité bi tamit aussi aw ma seen fay. parce que tamit aussi li lañ mën a réew mi. jox ko jox ko joxal maa la. combat bi su diiree du baax ci su diiree du baax si Modou Lo. waaw incha allah mën nañ bëre deux jours fu mu nañ bëre. yàlla baax na incha allah yàlla du dimanche la. maa ngi bëgg a dund. man nag aw ma habitude di wax. di tokku nit wala may am na nu ma waxee. parce que kon lu may wax tout le temps suñu papa yi dañuy seetaan. kilifa yi dañuy seetaan suñu ñu itam aussi même chose kon référence lañ kon lépp lépp lu ñuy lu ñuy wax rek duñ def lu rafetal suñu kàddu ba tey aussi dañu war a nekk exemplaire tey euh, euh, tey duñ def lu jox gaay rendez-vous le 28 mais ku tagg sa billet incha allah du ko waaw liggéey rek waaw combat bu nekk lu mu laaj. waaw liggéey nañu bu baax a baax. ah. dafa am. ah. waxal tur bi. gaynde la nee na dafa gis regalu gaynde ci yow. d'abord di nuyu maa ngi euh, nuyu Ndiassou ah Ndiassou jàpp na ci combat baax maa ngi nuyu. waaw loolu lépp euh, combat bi ko waral rek parce que kon lu may wax rek xam nga jàmbaar at na mu solo. du nag laay fi du nag ñun ñëpp ay doomu ndey lañ. sama frère la ndam lu jëli Sénégal dafa nekk combat boo xam ne damay supporter fan waa Pikine soxla kon combat bi dafa ma ñor. juste loolu la te dama du leneen bu baax dégg ñu li nga wax waaw man nag loolu man nag seetlu ma ci loolu quoi non non non seetlu ma ci loolu quoi parce ma habitude boobu mais daal en tout naa di xaar le vingt-huit yàggul dimanche d'ici quinze la di ñaan yàlla suñu borom may ma ndar jàmm yàlla bu xeebu laa jàmm yàlla bu xeebu laa mais maa ngi tàllal loxo Sénégal gi kilifa diine yi kilifa aada yëpp da leen di loxo ñu yokk ma ñaan parce que jaamu yàlla boobu def maa ngi nuyu maa ngi ñaanal suma doomu ndey suma rakk Tyson numéro 2 ñu jublu yàlla may na ci ndam ngi ñaan yàlla ñu daan jël bi seen parce que lii séeréer bu ko gis dina xam ne Eumeu Sène dafa dem kër maamam waaw kii bàkku bi ko dégg nekk séeréer di nga xam ni jogay jogay ne moo koy bàkku eh. ñaara kobale borom waaw loolu dama dellu fu dëkk rek waaw waaw c'est euh, waa di jaale Ahmed Amar vraiment kii société am nekk fii nekk fii ci vraiment ñu ngi jaale àdduna bi nga ñaanal yàlla yërëm ko taxaar ba àjjana ak Ousmane Tanor Dieng Ousmane Tanor Dieng tam vraiment ñu ngi koy jaale Sénégal gi yëpp vraiment c'est l'occasion pour ñu jaale di ak Moune Ndiaye di leen ñaan yàlla xarra àjjana ak président a Pikine bon c'est vrai que ni ñu bëri ñu xamul ne yàgg ma yokk poids mais nag euh, sant yàlla bu baax combat moo ko laaj pare nañ ko lépp combat bi amul lenn lu ñu bàyyi pare nañ ko ñu ngi tàllal loxo Sénégal gi yëpp di tàllal loxo kilifa diine yi kon kay kilifa aada yi ñu yokk ñaan parce que làmb moom defal li nga war a def yëpp mais ndam yëpp yàlla suñu borom mooy xool ku ko mu jox ko ko defaluñu yàlla lu tax tey mu defal ñu roi des arènes defuñu ko mais ñu ngi koy sant yàlla parce que xëy na wala ñu jàpp ni yàlla daf ko tuddoon ni dañ koy doon maa ngi ñaan yàlla na mu yàgg fii te tamit aussi lépp lu moom mën lépp lu ma xam dinaa ko def pour waa des arènes incha allah des Pikine ma téye ko sumay rakk. yàlla yàlla bu la 28 rek booy ñaari wax bu jeexee rek jeex na. maa ngi woo nag aussi euh, maa ngi woo di wax Pikine jour si dama bëgg ñu fees stade mobilisation bu saf saf laa bëgg ñu yëngal ci kaw may xam ma koy tàngal ci suuf incha maa tey boo xoolee jàmbaar li wax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar bu boolewul warut a tey ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi zéro violence dañuy ñaar ba nga tey waa parcelle am nañ mbokk Pikine waa Pikine am nañ ay mbokk parcel te bu ñu dajee ci xew rek ku ci nekk ñu wax la ak sa bokk da xam ne àdduna amul solo bugguñu kenn am fa benn blessure nañ ko def ci fair play Modou Lo suma rakk la du dëgg lamb la rek moo ñu boole ay xale lañu dañ ci toll di koy def ëllëg tamit aussi ñuy ànd suñu doom yi mën nañ takkante wala mën nañ mën nañ ci ànd mais nag làmb nag lamb dafa war a saf saf du dëgg voilà loolu la mais zéro violence Eumeu Sène ku wax xam xam ne ni ci jàmm rek lay dox man sama bët ay bëti garmi la du ma xool lu ñaaw sama nopp bi bëgguma ci dégg lu ñaaw sama laamiñ bi bëgguma ci génnee lu ñaaw parce que àddina amul solo nit nit rek ngay doon mënoo weesu nit maa ngi tàllal loxo nag Sénégal gi yëpp di ko ñaanal jàmm su ñaan jàmm su mu jàmm